bismillahi irrahmani irrahim waaleykum assalaam wa wa barakaatu mu dee laaju mbokk mu baax mi mu ne koo xam ne dafa fase soxnaam waaye soxna si nee na du génn kër gi te yeneen jigéen ñi nekk ci kër ga ñi ngi koy jox njël muy togg muy laaj loola lu ci lu ci lislaam wax waaw laaj bi moom bu dee wàllu fase mi moom daanaka amu ci solo ndax fase bi moom leer na amaa nag mu ne du dem loolu mi ngi mel ne benn waay ñëwoon sa kër rek toog wala jigéen jékki jekk dugg sa kër toog ne du ma génn loolu moom problème boobu nga am su ko dee nag incha allahu rabbi na ngay dem ci àttekat ba rek mu àtte leen wala nga wax ak ay kon loolu moom ñaara du lu ñuy laaj ñu lay tontu ndax fi benn waaye jékku njëkk dugg sa kër toog doo dem ci borom xam naa ko salaamaaleykum benn waaye moo ñëw sama kër toog nee na du génn <laughs> kooku ci àttekat ba ngay dem wala nga dem police wala yu mel noonu léegi nag la tax jigéen ji ne kër gi ëppale woo ma ci ndax dana jigéen ji jigéen ji dana ko du ma génn ndax kër gi ëppale woo ma ci loolu nu mu demee lu tax jigéen ji wax loola ndax daa am ci kër gi dara wala lu xew lan moo tax yeneen jigéen ñi am fit wu toll ne di jël njël di ko jox muy togg lu waral loola loola yeneen jugé la yoo xam ne mel ne laaj bi bu leeroon dëgg-dëgg ñëkkul lu waral loola waaye jëpp ma ne nit dana tabax këram moom ko yor soxna ba mu yàgg mu bàyyi soxna sa bàyyi gu leer nañ soxna sa am fir wu tool ne ne ko du ma dem waaye rawatina jigéen ña nekk ci kër ga jël njël di ko jox loolu yaakaaruma ne am na lu des ci laaj bi lu ñu leeralut wax laa kulli xaal ak nu mu mën a demee daal loolu moom du problème mu fase moom jeex na leer na léegi nag nit ku toog sa kër ne du ma génn kooku da ko yóbbu ci yoon da ngay dem police wallahu a'lam bismillah mu dee laaju mbokk mi muy laaj ne moom day bari lu muy sikk sàkk lool muy julli genn julli nag am ku ñëw di roy ci moom moom mi nga xam ne mooy eh, sikk sàkk lu bari moo taxaw di julli am ku ñëw di roy ci moom ba mu jullee ba julli ga jeex xelam di jax-jax yi julli gi mat na wala matut waaye ba mu laaj waa ji kooku ne ko ah kay li nga julli lépp mat na muy laaj luy àtte bi àtte mooy julli gi baax na incha allah bu fekkoon ne keneen la ku bokkut ak koo xam ne sikk sàkk daa nekk feebaram mbokk mi mbokk mi wax mooy koo xam ne lay faral di sikk sàkk lu bari hmm, kooku moom dañ ko koy jéggal incha allahu rabbi tey di yàlla dogal na sax am na ku ko leeral na ko julli gi mat na même bu amu doon ku ko leeral day jàpp rek incha allahu rabbi ne lim def baax na noonu la bu sëlmalee def baax da salaam ci ak sopp lakin alayhim mutlaqan an yasjudu ba'da salaamihim waaye bu fekkoon ne keneen na koo xam ne moom yorut feebaru sikk sàkk kooku bu jullee di sikk sàkk julli gi mat na wala matut du sañ a sëlmal faaw daa war a jóg mottali bu sëlmalee rek julli gi day yàqu ak doonte ba mu sëlmalee sax gannaaw ba yëg na ne julli gi na du tax mu baax ndax dafa sëlmalee ci sikk waaye kii nag daa feebar daa feebar feebaru sikk moo tax ñu jéggal ko ko kon kooku ñooñu dara du leen war wallahu aalam bisimilah waaleykum salaam wa rahmatullah eh, laajoo mbokk mu baax mi ne koo xam ne dafa tawat wala sax mën naa am mu màggat ba nga xamee ne daanaka mënul boppam lu bari dañ koy wutal lu mel ne couche boo xam ne lu mu bëgg a def ci wàllu dem àll ak tuur yépp yëpp la koy def eh, muy laaj kooku moom nu muy jaamoo yàlla jaamu yàlla yi nga xam ne dañ ciy charte laab. ak tamit nu muy jàppoo waaw bu mënee jàpp moom ak doonte dañ koy jàppal day jàpp fekke fekkee mën naa jàpp kooku dañ koy jàppal bu fekkee amul ku ko jàppal nag kon mu tiim wala ñu tiimal ko incha allah ah, ni muy jaamoo yàlla nag moom yomb na mooy day jaamoo yàlla ni ko mën rek xam nga kooku ne ko eh, nanga nga tàqali ko sobe si si nga yore déedéet kon bu julli jotee day jullee nam mane donte kuusam boobu ñu ko defal yal na yàlla uh, doole tawfiix mboolem ñi natt yu mel noonu dal léeg-léeg ak mag lay doon léeg-léeg tawat am na ñoo xam dañ leen sampal raccord ci la ñuy demee wanag ci la ñuy tuuree ndox bu demee hôpital da nga koy gis yàlla saafara leen loolu lépp boo ko xalaatee yow mi nga xam ne yaa ngi amug wér boo bëggee dem wanag da ngay dem rek tuur ndox noonu mu jeex nga defee ne yàlla du jox la doo xalaat sax doo sant sax yàlla ni mu yombee da nga defee ne normal la. bëgg a dem wanag dem dugg tuur ndox génnaat saxee sax du dem ci lii xéewal la te fekk am na ñoo xam ne raakool lañ leen defal ci la ñuy tuure ndox ndeysaan fu ñu jëm ñi moom ñu mel noonu ñëpp bu ñu julli loolu loolu la ñuy julliwaale moo ko boobu wala ba kuus bañ leen defal wala lu mën a doon moom la ñuy julliwaale boo jàngee asalul masalik da nga dégg mu ne aw xadasun mustankahun sobe soo xam ne wala toj moo xam ne dafa taqoog yow kooku moom incha allah dañ la koy dañ la koy jégal foog wa kullu ma shaqa fa anhu yufa li usrihi wa diinu yusrun lutfa lépp loo xam ne lañ lay sant nga dañal ko mooy la mën a nekk mooy ki takk sobe te xam ne man na koo dindi amaa ki takk sobe te mënu koo dindi wala sobe sa dafa dëkk ak moom incha allah kooku dañ ko koy jégal kon bu jàpp ci dañ koy jàppal wala bu dee daa war ñu tiimal ko incha allah mu julli nam mane ak julliwaale ak sobe sax wallahu taala bisimilah mu de laaju cheikh bi loo ñu ngi koy ziyaara muy laaj aada yi nga xam ne moom la ñuy xewal ci wàllu ndayale ak bàyyele ah, nee na léeg-léeg daanaka day nekk aada yoo xam ne dañ am coono lool ni ki buñ la bàyyele wala ñu ndayale la faaw nga joxe lii da ngay sonn ba di ca toggoo loo xam ne daanaka doo ko man muy laaj aada yu mel noonu nu ko lislaam di gisee xeetu aada yi aada jum ci mën a doon lislaam mu ñëwee day xool bu fekkee dëppoo ak diine lislaam bàyyi ko fekkee dëppoo na ak diine daal amut lu xaraam lu ca nekk ni ki leblante eh, bu am intérêt nga ne amu ca wala lislaam xool ba xam est ce que maslaha am na ci est que gis nañ lii kat lu baax la luy rafetal la suba kon lislaam da koy rafetlu bu demee ba génn foofa dugg nag foo xam ne moom lislaam gis nañ lii ak yàq lay jur su mu xaraamaat rek. mi ngi la xeeti ndawtal yi jamono ya ko mag ñee sos lu baax la woon loo xam ne lislaam bi mu ñëwee gis na ne lii lu baax la ndax xeetu ndawtal lam doonoon mooy ki koy joxe da koy joxe ngir yàlla lu mu ci jublu mooy dimbale ki nga xam ne dafa am ngénte dafa xewle ñu yëkkati dara jox ko ko ngir jëmme yàlla gis nga loolu lu ko gën a rafet amut dana jokk mbokk dana andi ak dimbalante ci koñ bi ak ci quartier bi ak ci dëkk bi wa taawanu alal bir waaye ba ca duggee nag riba duggee mooy lebale benn ñu fay la nangam wala boog sax duñ la fayeeku ko dara waaye boo boo ndawtalut ñu di la jiw ci koñ bi dégg nga dañuy dem ba daanaka xaw laa abandonné def ko lu gara di ci jëwante te ku faatu yu baale bori jàmbur yu bari yu mel noonu mu daal di xaraam mu daal di fa saasa naka noonu it moom it xeetu bàyyele yeeg yëpp noonu la lay cosaan mooy jokk ak mbokk mooy maag yow ñoo bokk benn baay may wàccee soxna jox la ko. nga wàcce ko ak yu mel kon bu yemee ci jokk ak mbok ak fa ko mag ña tegoon mu nekk lu rafet lislaam rafet ko ndax jok mbokk bokk na ci ne ko suñ borom waxee ci xadisul xudsi ba képp ku ko def rek suñ borom ci boppam eh, dégg nga moo lay jokk moo lay defal tawfiq ku ko yàqit suñ borom ci boppam moo lay moo lay teg musiba yàlla nañ ci yàlla musal bu demee ba nga xam ne léegi day yàqaat mooy buñ la bàyyeelee faaw da nga joxe nangam te loolu même boo ko amul da nga wuti boo wutee amoo ko faaw danañ la ci jëw la ci wax nangam boo yëkkatee la nga am joxe ko ñoo xeeb la dala ci jëw mu xaraamat xeetu aada yëpp noonu rek la lislaam li muy xool mooy aada yi lan lan moo ca nekk bu fekkee la ca nekk ak defar la ak ku yéwénoo amul lu alhamdulilah bu fekkee ak yàq ca nekk wala dafa ambulo lu mu xaraam wallahu aalam bismillahi rahmaani boobu jàlloon gën koo leeralaat daa mbokk mi am na yeneen leeral yu ci andi muy ki nga xam ne dafa takk soxna nekk bitim réew ci misaal soxna si nekk Sénégal nga ne mosuñoo gise kon mbokk mi leeral na laaj bi na mosuñoo siq dara mosuñoo gisee maanaa daalika daal du Njaay daa nekk itali daa di yónnee nañ ko may soxna Sénégal mu takk Fatou Diop doonte xam naa du nekk du nekk sëy bu am solo ndax comme njóobeen lu ci ëpp ñoom duñ wér lool xam naa bay ba Moodu Njaay di ko di ko bàyyi xel rek waaye bu ko toppee ci ko mën naa bañ a yàgg <laughs> ah, kon day mel ne kon jotuñoo gisee sëriñ bi ni mu leerale kii bi jotuñoo gisee léegi nag mudu Njaay tollu foofee ci bitim réew fase ko nga ne mësta gis soxna si mën naa am mësta ñëw mësuñoo séq dara daal la bëgg a wax ba ko fasee gannaaw ba ñu teg ci ay fan wala ab jamono Moodu Njaay ne soxna si dafa maanaa fase mi ma fase woon daf maa rëcc wala damaa juum wala damaa meroon daal bëgg naa dellu ginnaaw ca fase ma muy laaj ndax loola Modou Modou Ndiaye dina ko mën a fay lii maanaam da waxtaan ba juboo ñu continuer seen sëy tontu li mooy déedéet loolu du mën a nekk faaw dañ koy takkaat ndax euh, ida nakaxtumu almuminat summa na min qabli an tamassuhun fa ma lakum alayhinna min iddatin taataduunaha jigéen bu fekkee jutoo siq ak moom dara dara dara ba dara booloo kooku boo ko fasee amul da moo tax boo ko fasee rek bu xëyee suba mën nañ ko mayaat jëkkër fi mu toll nii moo tax ndaw soosu moom du daw ndax ak takk rek moo fa jot am waaye jutuñoo wéet jutuñoo siq dara su boobaa kon sëy ba moom tas na jeex na tàkk Modou njaay bu bëggaatee faatu jóob da koy ñaanat jaar fa mu jaaroon day joxewaat ak can incha allahu rabbi ñu fasaat sëy ba fas bu yees waaye su ko mën a waxtaane rek noonu déedéet euh, léegi nag ngir mu yomb euh, incha allah Fatou Diop bu fekkee d'accord na Modou Ndiaye day joxe man na mën na koo jox ak can rek su ko defee ñu toog ci am néeg wala toog ci am ëtt ñëw ne kon mayaat nañ la ko ci farata ak sunna baayam maye wala ka war a maye maye jërut ñuy dem ci jàkka ja di organiser waat di yëgle waat déedéet masalan Fatou Diop euh, mën nañoo wax baayam wala magam bu góor ka ko war a maye rek. naka Moodu de nee na xam naa daa juum léegi nag deux mille euh, vingt cinq mille ngi nii joxe na ak can su ko defee sëy bi comme amul idda dañ koy takkaat kon mi ngi ñaanaat su ko defee bu faatu jum nangoo jël xaalis boobee baayam jooji wala magam jooju ne kon mayaat nañ ko ci faral sunna jeex na xanaa jëru sax muy génn kër gi xanaa day day mel ne ak fay la te fekk du ak fay la ak fas lay doon waaye fas gi nag mën naa bañ a siiw mën naa bañ a indiwaat yeneen coow déedéet ni ki Fatou Diop mën naa mi ngi toog ci kër gi ba léegi wala nit ñi defe nañ dafa fay mën naa dellusiwaat ci kër gi ñu toogaat ci benn barab dajaloot fasaat sëy bi rek mu jeex wallahu taala alamu sawaaba bisimilah bu dee laaju mbokk mi mu ne koo xam ne dañ koo may borom kër borom kër ba nekk bitim réew jotagu ñoo gisee nee na gannaaw mu fasewaat ko ba ko fasewaatee nag bëgg a delluwaat ginnaaw ne ko xam naa daal fase mi da koo wala yu mel noona façon bi mu am na ba noppi waaye nag bu delloo ginnaaw incha allah moom ndaw si bu d'accordee rek incha allahu rabbi loola mën naa nekk ak fayli kon daal da koo fase woon ba mu yàgg mu delloowaat ginnaaw incha allah delloo ginnaaw googu man lislaam da koy nangu incha allah rek kon loolu jërut takkaat jërut di fasaat jërut dara bu fekkee ëddëje jeexagut niki da koo fase benn fan ñaari fan wala weer nga daal yàggut lool incha allah rabbi mu ne ko daal delluwaat na ginnaaw ca fase ma damaa juumoon incha allah loola jërut fasaat jërut dara dañuy continuer seenu say rek sopp nañu nag ñu yëgal ko ay nit ñu xool ñaari nit yëgal ko ko diw ko dama ko fasoon waaye ak ñàkk a déggaloon waaye nag na nga yëg ne fayli naa ko loola moom sopp nañ ko waaye bu leen neexoon it duñ ci wax kenn dara muñ waxtaanaatee ba juboo rek jeex na mu nekkaat soxnaam mu nekkaat borom këram wallahu aalam alhamdulilah bu dee ñaareelu laaj bi mbokk mi laaj na laaj bi jaaroon na fi ñaari jigéen ñu bokk benn jëkkër bu kenn ko amee doom moom li muy laaj ka ca des kañ lay tàmbalee ayawaat waa ka des ak ayam daa jeexut wala ñu de ko dagg ba muy tàmbalee ayawaat ak ayam ba léegi mi ngi fi jigéen bu amee doom nekkul ne day ñàkk ak ayam déedéet déedéet jigéen bu amee doom ba léegi nam doon ayee lay ayee attention ci góor ñi nañ ci bàyyi xel jigéen bu amee doom nam doon ayee rek lay ayee ayee nag tekkiwul sëy am na góor ñoo xam ne. góoru njóobee ni ñoom dañoo de heure boo ne ayee rek dañu yaakaar mooy nga joteeg soxna si mooy ngay sëy ak moom <laughs> déedéet loolu du ay ay mooy mu moomee rek mooy daal góor ga foofa la war a fanaan moo xam day waxtaan ak soxna sa ba bët set moo xam da koy dimbale ci liir ba mën naa am sax ki am doom moom moo gën moo gën a yeyoo ñu ayee ci moom ndax ñu dimbali ko waaye ni góori njóobee ni def ba sa soxna amee doom rek nga daal di changé am néeg tuxu ndaysaan guddi gi muy yor liir bi di liir bi jooy tabarkàlla kenn du ko dimbali loola du ngor <laughs> loola du ngor ak loo jàppee sa bopp kilifa kilifa mooy ki ëpp na yonente bi salaa moo gën a nekk kilifa te moo ëppoon yërmande dara dimbale jigéen ñi bu ma saan dugg si fekk leen ñuy dagg ndawal ndeysaan mu daal di ñëw toog ca waañ wa ñu rëpp toog di leen jàppale ñuy dagg bu ma saan ñëw fekk ñuy bale ba sonn mu jàppale leen su ma saa ñëw fekk leen ñuy eh, dégg nga lay lu mel ne ay sunguf ak yu mel noonu mu ñëw jàppale leen ndeysaan kon léegi na góor ñi dañoo rëy léegi sax góor ja góor ñu bari jafe nañ ngir ñu nekk kilifa maanaam loolu lépp duñ ko def ngir ñu nekk kilifa daal dañuy xoggaliku dégg nga duñ def dara duñ laal ab xale boo ko joxee xale sax mu ne man damaa ragal damaa ragal xale te moo ko jur loolu bokk ci yërmande bokk na ci yërmande ak ak wàcce sa bopp mooy nit bëgg gone yonent bi sallallahu alayhi jigéen ñi dañ daa indi seeni doom mu teg ko ci kawam defe naa hadis bi euh, sayidna aïsatu ak ummu salama nettali yàgg nañu indil yonent bi jox ko xale mu di ko ñaanal ak di ko foo ak moom ba xale bi tuur ko ndox bari na lool ah, kon nag dañuy bëgg nit di ñeewante jigéen kon ki am doom sax moo gën a yeyoo ñu aye ca moom ngir dimbali ko ak ngir wéttali ko waaye mu am doom rek nga ne ko man mënumaa laal xale wala nangam déedéet wax dëgg yàlla doom ji yaa ko fi andi. kon jigéen bu amee doom nekkul ne ak ayam daa jeex bañ naan kañ la war a ayewaat déedéet ba léegi mi ngi ayee bu ko neexee nag bu fekkee moom euh, euh, moom ndaw sa ci boppam wujj we muy aye ba keroog man ma wér su boobaa kon baax na kon heure bu wéree ba soxla ak ayam rek ñu delloo ko ko waaye bu fekkee mayewu ko dañoo war di aye ca moom dafa di fa fanaan incha allah wallahu aalam bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj sëñ Xaban rek laajoon na laaj bi ne mi ngi mel mu ubbi compte di fa bàyyi xaalis ba euh, at mi dellu si laaj ba léegi sëñ Xaban comprendre ma ko kon nag nee nga ba ma ko njëkkee tontu na ma ko tontoo du noona ndax ko ndax laaj bi bi nga ko leeralaatee nii wax dëgg yàlla dégg xaw ma li nga bëgg a wax kon maa ngi jéggalu laaj bi na ngay dem ci yeneen borom xam-xam yi nga toog nga leen ko dugg seen bopp comme njëkkoon nga koo laaj ma tontu ca te noona nee nga du noona la nga waxoon jubluwuma jubluwoo ca loola leeralaan ko ko li nga leeral moom dégg naa ko déglu naa ko ñaari yoon waaye wax dëgg xaw ma li nga bëgg a wax nag ma koy jéggal nga dem ci yeneen borom xam yi incha allah wallahu aalam bu dee laaj bi ci mbokk mi laaj ne nit ñi ni yenn waxtaankat yi dem ci yenn màggal yi wala cant yi di waxtaan ci ay sëriñ waxtaan yoo xam du dëgg di nettali ay xissa yoo xam ne dara wéru ca mooy laaj loola ndax ñi leen ci invité dañ dañ fee am bakkaar waaw bu fekkee ne xam nañ ne ñii li ñuy wax du dëgg ba noppi ñu di leen invité maanaam xam nga ne Alioune Badara mii boo ko wooyee day nekk di bëgg loola neex dana tax mu wax sa maam loo xam dara du ca dëgg tey yow xam nga ko muñ toog ca baas ba di wax lu du dëgg nga xam ko waxoo ca waxoo ko dara bàyyi nit ñi ñu gëm loola su boobaa kon daanaka ñooyam ñoom ñaar bal am na ñoo xam ne sax ñoo ko ci jublu maanaam Alioune Badara sëñ Baara Faati Mbooñ mooy maamam saxee daan na ànd ak sëñ Tuubaa ko am daraja la ko daan na bindal kaamil sëñ Tuubaa ay kaamil yu bari dëgg la léegi nag loolu bu fekkee tax na Alioune Badara daal di organiser ak màggal lu ci ëpp nag ngir wut xaalis lay doon organiser ak na may def cant sëñ Baara Faati Mbooñ lim liggéeyal sëñ Tuubaa ak yu mel noona <laughs> ndax bu fekkoon ne ngir yàlla rek la cant ga moom wax dëgg yàlla xëy suba jàng alxuraan jàng xasida yéene ko yool ba su ma amee dara aw ñam ma toog jox ko nit ñi ngir yàlla bu dee ñaan rek la mi la noon la waaye yu bari yéen cay yokk nag yu bari bari bari yeneen la yeneen i mbir yoo xam ne ña ko xam-xam nañ ko bu fekkee ba dara nag dajee bëgg a def commerce ma daal di eh, tabaarkàlla woo sëñ Ibrahima Diop te man xam naa ne sëñ Ibrahima bu ñëwee day wax lu dul dëgg ci sama maam waaw. sëñ Baara Faati Mbooj moom mag ñi àndoon sëñ Tuubaa moo ci gën moo ci gënoon def nangam moo ci gënoon def nangam sëñ Tuubaa nee na ko nangam nit ñi yuuxaloo te xam naa ne li muy wax moom du dëgg man jàng naa histoire sëñ Baara Faati Mbooj te mën naa am sax ba ma koy woo loolu laa jublu woon mooy na wax rek moom daal na yëngal baas bi rek xam nga nit ñi dañ koy wax naan diw de toj na màggal ga léegi waxtaan kat ñu ci ëpp dañuy fexee toj màggal gi ndax ba ma demee toj naa baas ba rajax au lieu ñu ne jàngale naa jikko yu sëñ baar sëñ Baara Faati Mbooj na mu ragale woon ni mu mokkale woon alquran ni mu daan liggéey la sëñ Tuubaa ni mu ko toppee woon ni ko wóoloo woon gëm gëmoon ko ñaata kaamil la ko bindal ni mu wone woon ginnaaw àdduna ay doomam ni mu leen taxawoo ba ñoom ñëpp ñu mokkal alxuraan li may wax ni lépp nag lu am la ay doomam ñëpp dégg nga am xam-xam dégg nga na mu góorgóorloo dem sañc ab dëkku boppam mooy Daaru Gay dégg nga di jaamu yàlla ba yàlla jëlee ko fi. yal na ko yàlla dooli ngërëm au lieu ñu leeral lool nit ñi ak yan jikko lañ war a royee ci moom de duñ ko def day ñëw di wax ne moo fi gën ñi àndoon sëñ moo ci gën a def nangam nee na man sëñ Tuubaa nee na ma nangam di nettali yooyu bu fekkee ne man ba ma wootee laaj jublu woon ngir ñu yëkkati sama maam wax lu dul dëgg ak donte dañuy wax lu dul dëgg sax man santuma ko waxtaankat bi waaye ma nga ñëw di wax lu dul dëgg te man bu ne moo wawaar ko ngir mu tojaat baas bi loolu moom euh, xiyaana la riche maanaam wor la waxtaankat bi daa mel day kompolo ak borom màggal gi ñuy war nit ñi toog ak di leen wax lu dul dëgg ngir yëkkati seen darajay maam loolu nag su boobaa kon incha allah jotaay la boo xam ne du jotaayub dëgg jotaayub jaayante rek la àndub jaayante tàqale ko jëwante da ngay dégg léeg-léeg waaj ñëw waaj na waaj wax dëgg li mu waxtaan wi neex na lool waaye li mu doon wax ci sama maam la wax dëgg moom wérut te bu déwénee nga waar ko kon yaa ko jublu da ngay nax nit ñi wallahu aalam bisimilah mu dee laajo mbokk mi laaj daa am sëy buñ doon takk waaye timis ginnaaw timis lañ ko takk mu ne nag dafa dégg nag ñu naan bu dee ku mës a dem kër heure bii la bu dee ku mës dem kër kër heure bii loola dara wéeru ci <laughs> bu dee ci lislaam lislaam sëy amulu ko benn heure takk guddeeg timis ak xaaju guddeeg ginnaaw takkusaan ak ginnaaw tisbaar ginnaaw subaak lépp a mën a nekk amul benn heure bu ñuy tere amul tamit kii daa am jëkkër wala mas naa am jëkkër wala ab jànq la loolu it amul ci lislaam ma aaday nit ñi la rek waaye ab sëy na koo takk heure yëpp incha allah wallahu aalam bismillah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj daa mel dana jigéen la ku sangu janaba ndax mën nga caa julli waaw rawatina bu dee jigéen sax jigéen daal heure bu sangoo janaba num mën a sangoo sangu janaba yaram daj ak ndox te fekk njëkk teewloo woon na yéene incha allah moo xam dafa ubbi sens bi mu tàmbalee ci kaw bopp ba di raxas bayiwul fenn raxas noppi biir bi raxas awraam ba fépp daj bu bëggee julli bu génnee bu fekkee defaatul dara lu yàq njàpp génnewul ngelaw ma daalika tuuru tuuraatul ndox même bu laalee sawukaayam du ko yàq ak nu ko mën a laale loolu mooy la gën a la ñuy sukkandikoo ci yoonu al imaamu Malik na rahimahullahu taala bu génnee fekk julli jot mën naa dem julli ci bu dee góor la tamit même chose bu fekkee dafa ubbi sens bi muy xelli ci kawam wala daa tànk di sotti ba fépp daj te gannaaw ba mu raxasee cëri njàpp mi defaatul luy toon njàpp góor moom laal awraam xalaf saxiix day yàq njàpp dee ci yoon al imam malik am na ñu ne du ko yàq waaye ñun li ñu sukkandiku mooy da ko yàq isa masa ahadukum zakarahu ba bu kenn kenn ci yéen bu laalee awraam rek yéen góor ñi sàkkara la tudd na dem jàpp kon bu dee góor gi tamit bu fekkee defaatut ginnaaw ba mu jàppee benn benn wala gannaaw ba mu raxasee cëri njàpp mi bu defaatut dara lu yàq njàpp bu bu fekkee daa bëgg julli rek li fekk defut luy toj njàpp rek mën naa dem julli ji wallahu a'lam laaj bi ci tege mbokk mi laaj taaya nuñ koy defee waa bu dee taaya daa am jotaay bu njëkk julli gu bokkut ak suba rek am nga ñaari taaya julli gu bokkut ak suba suba moom benn rek la am tayib kon bu dee jullik suba benn taaya ci am mu jotaay bu mujj boo ca toogee da ngay jàng attahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi atayibaatu asalawaatu lillah asalaamu ayuha nabiyu wala nabiyu boo ci wax baax na wa rahmatullahi assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allahu waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh loolu mooy taaya bu jeexee nga yokk ci allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahim fi laalamina innaka xamidum majid incha allah am na beneen xeet waaye bii moo gën a siiw nga jël ko bu jeexee nag benn nga sëlmal wala bala ngaa sëlmal nga ñaan booy ñaan man nga ñaan saw làkk bu dee ci ñun am na nag ñu boo ñaanee saw làkk julli gi day yàqu ndax wax nga lu bokk rek julli gi waaye waroom xam-xam nee nañ ah kay mën ngaa ñaan te boo comme yonent bi salaa salaam maye na ko mën ngaa ñaan te kuy ñaan nag bu déggut arab du arab la ñuy ñaane mën naa ñaane ci aw làkkam waaye la gën nag mooy boo mënee fas ñaan gi sa xol moo gën moo gën a wóor ndegam am nañu ne boo tuddee saw làkk na yàlla yàlla na nga may na am nañu ne julli day yàqu ndax julli yaa ngi ci dugal léegi lu ci bokkut kon la gën rek mooy liñ lay laabire mooy nga ñaan sam xel rek la nga bëgg lépp incha allah nga doog a sëlmal bu fekkee nag julli gi daa am ñaari taaya kon boo toogee ci jotaay bu njëkk bi attahiyaatu gi ma njëkk a wax ngay tari ba abuduhu wa rasuluhu nga jóg bu ca yokk dara boo toogee ci jotaayu ñaareel nag nga tariwaat ataxiyaatu ba mu jeex nga def allahuma salli gi ma wax ba mu jeex bu dee ku ko mënut allahuma salli ko da koy jàngi waaye du yàq dara julli gi nag incha allah bu allahuma salli jeexee mu def ñaan doog a sëlmal wallahu taala alamu sawaab bismillah mu dee laaj bu mujj bi mbokk mi leerlu euh, lan la lislaam wax ci jigéen joo xam ne buy boot doomam da koy boot ci kanam ni nga xam daal tubaab yi ñaareel lañ daa gis ñu da ko def waaw xam nga lislaam nag moom néewut jàngalewut boot néewut ku sa doom juddu sax nga boot jàngalewut lool boot moom aada rek aada la maanaam bëgg ngaa fob sa doom noo koy fobe nga jël ko boot ko ci ginnaaw kon nag nga boot ko ci kanam insha allahu rabbi <laughs> loolu moom lislaam du ca wax dara almuhim daal question bi question aada mooy bëgg ngaa yëkkati sa doom noo koy yëkkatee nga jël ko boot ko sa ginnaaw wala kee boot ci kanam noo defe baax na la gën nag mooy nga xool lii aada aada yi fa nga dëkk incha allah nga defee ko noonu wala boog nga xool lan moo ca gën ci wàllu aada ak ci wàllu atibu muy wàllu docteur nga xool nga laajte lan moo ca gën nga defee ko noona waaye daal lislaam moom santaaniwul néewul sax ku am doom na ko boot yow mi am doom yaay xam ne mënoo koo ñàkk boot mënoo ko ñàkk a fob xam nga néewul nii nga koy fobe sa ndeyjoor wala nangam bal ab jullit buy def ndeyjoor lay defee waaye néewul boo koy fob nii nga koy fobe déedéet kon daal ku am doom incha allah nga boot ca kanam boot ca ginnaaw yépp baax na Euh, bu dee wax nag lan moo ci gën a baax wala lu ñu war a def nañ nañ xool ña xam loola ñu laaj leen lan moo ca gën ndax boode ca ginnaaw moo gën ndax fi ne boode ca kanam am na lu ci docteur yi wax am fi mu toll nii nee nañ bu fekkee doom ji dafa juddu te dese naa mat boo koy bootee sa kanam sa tàngooru yaram day tax xale bi day am yaram maanaam day day day mat loolu nag mbirum docteur la naa ko bàyyi docteur yi haasa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wallahu taala aalam wa raddu ilayhi aslam mbokki lii moo fi jotoon rot ci ay laaj jéem nañ sunu kem kàttan nag lépp luñ ci wax tadu noona yomb na yomb na ab jaam lool nga wax dara fekk na nga ko war a waxe ni ñi nee nañ ah bu ko waxee woon nii de gën a rafet bu defee nii mu gën a baax lii de warawu ko waxee nii loolu de kon matadik doomu aadama la ñu ngi koy tuubal yàlla di ko tuubal waram xam-xam yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi laaj seet waaw seet moom dama ciy gàttal ndax tontu nañ ci ay yoonu yoon nee naa seet ci lislaam amut ci sariya maanaam yi amul kenn ku mën a wax ne seet bii yonent bi salaa salaam moo ko jàngale seet seet laa wax seet wala gisaane amul ci ndox amul da ngay jàppoo péru course bi amul nangam kon nag kii seet moom mooy xam seetam fu mu ko jëlee kon nag nañ ko génne ci lislaam lislaam yonent bi salaa salaam ci sariya jëngalul kenn naan ko boo bëggee xam lu bal xam lu ñëwagul sax yonent bi da koo dàq maanaam di jéem a gëstu lu ñëwagut lu ñëwagut tee ngaa xaar ba mu ñëw rek ndax alxuraan daa wax ne lu ñëwagut man rek maa ko xam léeg-léeg dinaa ci mosal samay nit yi bopp ci yonent yi man naam ak ci nit ñu baax ñi wallahu aalam yonent bi lenn la jàngale képp muy istixaara muy tànn loo yàlla yaa ngi bëgg a takk soxna Faatu Jóob mii day bëgg naa xam ndax gën na ci man bala maa dem di ko labati ma tànnloo yàlla xanaa yàlla moo gën a xam seetkat bi wala déet <laughs> wala dañ koo wóoruwut yàlla moo gën a xam Alioune Badara bal boo ne moo gën a xam sax day mel ne kii daa xam kee xam déedéet waxin la waaye kon daa mel dañoo wóoluwut yàlla yor est-ce que wóolu nañ yonante bi sallallahu alayhi moom mi wax ne bu ngeen bëggee takk soxna defee leen ko nii ñun ñu bëgg a takk soxna dem defee neneen loolu lan la ñàkk confiance la wala lu doon dañoo wóoluwut yonante bi moo ne bi de moom lañu ñu alxaar ne wa ma aataakum rasul fa xuduuhu bu leen yonent bi joxee jël leen waaye waxuñu waxu la bu leen Alioune Badara joxee jëlal de déedéet kon Alioune Badara boo waxee ci coobaree boppam xanaa xalaatu boppam dong la tegal nee wala nga seet rek ba xam bu la arrangé baax na bu la arrangé nga bàyyi waaye bu laa yonent bi nee na kooka yonent bi sallallahu alayhi moo wax alxuraan moo ne yonent bi bu leen joxee jël leen léegi tey bi yaa ngi nii yow alin Badara yaa ngi waaja a takk soxna xam nga ne yonent bi sallallahu alayhi nee na la booy waaja takk soxna tànn loolu yàlla julil ñaari ràkk nga ne suñ borom bintu jóob mii ma bëgg a xëy suba ñaani wala ma bëgg a xëy suba dem seen kër xamal ko ne ko dama ko bëgg soxna ñu fas yéene jaamu yàlla bu gënee ci man yàlla na nga ko def mu jàppandi te yéwén bu gënul ci man yàlla nanga ma ko xaajal andil ma keneen ku ko gën te moom it nga jox ko keneen ku ma gën leer yonent bi nee defal nii léegi nag bu fekkee dégg nga lii ba noppi nga wëlbati ko bàyyi ko fi dem ne déedéet man yonent bi doyu ma li mu wax daal du ko def te yàlla neen la jëlal lim la wax nga def ko nga ne defuma ko léegi nga daal dem ci Ibrahima jóob mi nekk ci koñ bi dem naa ko xoolal ma mu xoolal la lu la wax rek sa mbirum bopp la loolu kooku yoonu lislaam nekkatu ci kon heure bu nit ki bàyyee la ko yàlla sant Sëñ Tuubaa nee na walla si mu maxtiira lakum yaani al umur alladi uxtiira lakum day leen def li nga xam ne moom la leen yàlla tànnal ba noppi yàlla daa tànn yonent bi tànn ba noppi boo fi bàyyee loolu dem tànnal sa bopp nga xam ne bi nga jógee dem di seeti seetkat bi mu di la seetal bu ne la waaw seetkat bi ngay dem di seeti moom ndax alxuraan na la ko digal ndax yonent bi bal da koo tere yonent bi ne ku jéq say jéego dem cib mu di la xoolal lu ñëwgut naa la lii nii lay demee wala nangam la demee nga gëm lam la wax weddi nga li yàlla wàccoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam faqad kafara bima unzila ala muhammad lii nit ñi leer la seen bopp dañ dañ koo mënta bàyyi kay ngir bakkan <laughs> kon nag kuy dem ci seetkat nga dem rek te wax dëgg yàlla laaj yi bari na lool te nit ñi dégg nañ lañ wax léeg-léeg dañ koy dégg ba nag bañ koo jëfee naan waaw bu fekkee nii la ko defeek bu fekkee daa jël am ndox fekkee nangam bas ñu ko arab yi waxee <laughs> wallahu taala alamu sawaaba waaleykum salaam wa rahmatullah ok jërëjëf sëriñ bi ci leerlu yi am na solo lool laaj nga laaj bu sew nag laaj bu sew nga laaj laaj bu sew sew sew nga laaj boo xam ne <clears throat> Hmm, mën naa am jànkat yi mën nañ ko bañ a bàyyi xel sama maas gi waaw léegi takk-takk bi donte ulama yi dañoo werante dañoo am ak wuute maa ngi jégalu ci baatu werante borom xam ne dañoo werante ci fase kañ lay màbb maanaam boo fasee sa soxna léegi mu dem ba idda ji jeex mu tak nga takkaat ko est ce que la ko njëkkoon a fase dañ koy effacer nga tàmbali à zéro wala déet defe naa dégg nañ li ma bëgg a wax maanaam daal mooy <clears throat> nit ki fase woon na soxnaam euh, léegi gannaaw ba mu takkaat ko ndax boo ko takkaatee mooy bu idda ji jeexee fase na am idda ji jeex na comme mbokk laaj bi mbokk mi laaj léegi xam nañ ne mas na koo fase mu bindal nañ mas na koo fase léegi bu ko takkaatee ndax day tàmbaliwaat zéro ba keroog mu koy fase ñetti fase wala boog. bu ko takaate dañuy jàpp ne masoon na koo fase bu ko fasawaatee dañ koy jàppe ñaar hasa mawdihu xilaaf mahallu xilaaf borom xam dañ cee werante am na ñu ne ku fase soxna bu fekkee it da jaxas na ba jeex nga ne faaw da koy takkaat mënu koo fayli bu ko takkaatee day doo ko tàmbaliwaat na kon lam nga njëkkoon fase dañ koy effacé dañ koy effacé am na ñu ne déedéet ñetti fase moo mën a effacé maanaam nit ki ngir li nga fase sa soxna ngir ñu effacé ko faaw nga am ñetti ñetti ñetti fase maanaam kon boo fase sa soxna benn dañ la koy rëddal moo xam idda ja jeex na moo xam idda ja jeex na wala idda ja jeexagut ñoo ci yemoo boo ko takkaatee wala nga fayli ko nga fase ko dañuy jàpp ñaar boo ko fasawaatee ñu jàpp ñett léegi bu ñett amee nag léegi ba baada saw ji am boo ko takkaatee léegi dañ naan la effacé nañ lu njëkk la maanaam nga xam ñoom dañuy jàpp ne te mooy wax ji gën a wér nag bay boo nga jàpp ko mooy dañuy jàpp ne li feeg faseegoo ñetti fase sa fase kenn du ko effacé kenn du ko kenn kenn du ko effacé hmm. ok maanaam euh, boo fasee sa soxna benn fase dañ koy rëdd nga fasawaat ñu rëdd ko nga ñu rëdd ko muy ñett léegi nag bu demee xam nga dalay araam bu ko keneen takkee ba nga ñëwaat ba mu dellu si ci yow moom dañuy effacer lu njëkk la dañ koy màbbal waaye li fekk loolu amul nag heure boo ko fasee la nga ko dañ koy jàpp dañ koy rëdd ci misaal kon ci gàttal ma tontu laaj bi mooy kii nii nga xam ne léegi fase na soxnaam te mës a siq ak moom dara nga ne kon idda idda amut da koy takkaat bu ko takkaatee dañuy jàpp ne masoon na koo fase bu ko fasee beneen fase ñaar la ñuy rëdd loolu da wax jooju moo gën a wér bay boo jàpp ko wallahu aalam